tangé yeen lu tangé ngeen doon ay hypocrite doon nafaq pour muy lèr nabi vision gouvernement Macky Sall bi Macky Sall di jël population Sénégal di dool di jël doomu sénégalais di len ray bobu yaay ngi ci nday radio RFM bobu nafaq nak mënul wessu lool Assane Gueye yow yaag babakar Fall TFM yeen la gëna xaaré sen seen nday gis nga gouvernement bi bu len yaakaar ay tiaxal lañ ko jëlé dañoo rayante li tax Ousmane Sonko téye nday dëkk bi nak wa fas yéene jël kullu ndey doomu xaraam naa féq yi nekkoon ndey si Macky taal seen dëjjëw ndey ba ngeen nekk doom ñu ëf seen ndey yéen pareeguñu ak yéen de lii lâchement la nar ngeen a wax ba toj seen cottu ndey Assane Gueye yow lay waxal yaag Babacar Ndeye fal ak kullu ndey doomu xaraam bu àndoon na Macky Sall rawatina ndey Moustapha Diakhaté mi toj cottu ndeyam ki gën a yées saa yu ngeen xëyee am lu ngeen di critiquer ci gouvernement Bassirou Diomaye fay seen digg copperetu ndey ngeen ko commentaire pour muy leer ñun ak yéen xolal ñun ñooy dëjjëw seen ndey ba ngeen ñu Sénégal Ousmane Sonko du leen tontu amul seen jot moo Bassirou Diomaye fay gis nga ñun patriotes yi nga xam ne ñoo nekk ci ndey internet bi ñooy xëy di kalaas seen dëjjëw ndey saa yu ngeen xëyee. Naby Vision. gouvernement bi bu leen yaakaar ne dañoo ko fal Ousmane Sonko bàyyi ko noonu ñun ñoo koy tontul di ko aar ci côté bu nekk. bu yeboon na ngeen préparé seen bopp dinañ jël seen ndey taal leen ndey ba ngeen nekk doom ñu ëf seen ndey saa yu ngeen xalaatee suñu gouvernement bi nga xam ne xéewal yaa ngi saawaan di baawaan kenn ku ci nekk ngi ciy gis sa bopp loolu moo leen di déranger jàppoon otage sénégalais torture lu leen neex ngeen utiliser ko amuñu fenn fu ñu génn freedom jamais mais alhamdulilah ba ko usmaan Sonko téye Ousmane sonk bi ngeen doon xëy di yàq suba ba ngoon moo téye dëkk bi nag di ordonné seen xol di kat seen dejjow nday ta saram ndayam du ko am senegal instant bi ñu ngi ci avancement bu amul fenn ta dañuy ñaan yalla mu gëna a sawan bawan na len sawaru safaru Kalando bee ñaar len jox seen waccu way ah kon yeen yeen yeen yeen animateur yi ah yeen animateur yi DJ Kolos DJ Kolos DJ boops Aba No Stress bab sidifal ah bab sidifal ak kan sax na de. Pape Sidi Fall Cheikh sar DJ Patros ndax yeen da ngeen di sétan seen animateur ah ñu di sank ni diko di doole ngeen tok di seetaan alaaji Assane Gueye soi ans directeur ñu wax ko deug muy suspendre kiko ko wax li mom Sénégal rek la am yow ñu wax la deug nga na da ngay suspendraate li la sétan wax deug la barke alcorane karim deug la deug la yow gouvernement bi ndegam gouvernement bi ngay duñ la wax dara yow simple directeur ah ñu lay dingan nga naan da ngay jéem a suspendre yow day heureusement ba nga amul sa yëfi bopp yow bu amul sa yëfi bopp dictateur ngay doon alaaji Assane Gueye barke alxuraanu karim kii bu amoon yëfi boppam dictateur lay doon sama gars yi ziar naa leen safaru kalandoo bee ñëwaat leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp alaaji Assane Gueye rankiñe la waxoon naa leen ko suspendre na Sidaat Thioune ne ko suspendre lañ la jusqu'à nouvel ordre ndax propos yi mu waxoon fan yee ne alaaji Assane Gueye danga nga commencé di défendre gouvernement boo xam ne day soog di commencé loolu da ko wax mu suspendre ko kon kii bu yoroon réew mi àdduna tukki kon kii kii moo doon conseiller Macky Sall kii jamonoy Covid 19 bi moo doon conseiller Macky Sall nan ko del jàpp nit ñi del dóor parce que sénégalais yi dóor lañu xam loolu la xam mais yoroo wërsëgu sida yàlla fankul muur ki ñaan fankul muur yàlla mooy maye wërsëgu siraat alaaji Assane Gueye yoroo ko ya war ngaa xam loolu sax war ngaa xam ne siraat ba muy judd yalla tàgguwu la te leer na ma ni kan, ba muy dugg RFM da nga xey rek gis ko fa bàyyi leen seen ni ngeen mel bàyyi leen lu ngeen ëppalee nit ki won ko ko barke alquranu karim li ngay def ni li dafa rusul sax ñi ngi sok di xam nak sa sa vrai visage alaaji asan li ñaan li ñaan li ñaan li ñaan eh, liñ ko jikko yu kuy wut du jikko jikko ku ñak du jikko nit ki bala ñuy xam ni nga mel rek nga am billahi wallahi mais nak sidat patriote yëpp ñi ngi sa ginaaw barke alquran karim yow vrai patriote nga billahi wallahi alaaji asan gay li ci kanam rawuli beut mané ko sidat sidat nak yow amo fi badjen kat suspension kay alaji asan buy am kay def ko l'observateur fen kat bu mag bi da nga fatulul ewel ak euh, salas <laughs> imam alin badran ñom bu ngay bo suspendre l'observateur fi l'observateur patriote maa leen nuyu di leen siyaar leen jox seen wàccuwaay nga yow Assane Gueye barki alxuraan Sénégal ba mu daj yaa fi gën a doon seytaane yaa fi gën a doon naafeq yaa fi gën a doon mécontent yow fere doomeeraam nga yow xoolal gouvernement Macky Sall 12 ans la fi toog di caxat caxatee àllu réew mi yàq dëkk bi complètement kenn musul génn nga nga kenn musul dégg nga génn wax tey jomaay même pas 3 mois nga taxaw fii bëgg ñoo fat di def sa affaire manipulateur yi di manigancé nga sa manigancé yi nag du jàll yow boo demee di taxaw di duul di fen ba ki nga bokkal fi ngay liggéey génn di la corriger ah yow nga war a rus nga war a yem yow même sax yaw yow yow xoolal yow boo rusul sénégalais yi nga rus say doom rus say jabar nga xam ne ñooñu dañoo am nawle même yow boo amul ay nawle yow sa jabar say doom am na ay nawle fu ñu génn sa papa duulkat la seen jëkkër duulkat la loolu dafa ñaaw barki alxuraanu karim ñun nag naa la xamal benn affaire nga ñun ñoo leen ëpp jot fop cinq ñu génne leen dëgg lolu bay boko def ko sa bu baax asan Gueye barki serim Bamba ngay yeen bu fekke tok muy toog fi amone ah mo yóbbu sen xel da nga ñukoy koy wax ñu yóbbu len dalal xel en tant que directeur yow grade directeur bi la directeur bi la nomé sax yow yello woko ndax fen kan nga dul kan nga wala yeen bu ngeen waxul si Sonko ak Diomaye seen journal du jar mais jappo len ko ni rek ñun mom du len may dara magum jëm bu fi genn dul so genn magum jëm bu fi rusul genn dul ñun xalé ndaw yi ah mosu ñoo génn wax la dëgg teg leen ko ci yoon ngeen xam ne seen affaire yu ñàkk fayda yi ngeen def du jàll yow Assane Gueye yow yaa si raw yow ku ñàkk fayda nga waxuma nga indi sa benn émission tuddee ko wax sa xalaat loolu mooy wax sa xalaat wax sa xalaat kay da ngay wax li nga xam mais yow sosal nit duulal nit ah yow jomaay sonko jomaay sonko boo waxul si ñoom pour ñëw pour yow waxoo dara nekkal nit nga jox sa bopp nit nga xam ne li fi amoon amatu fi Sénégal liggéey lañ wooree ku si mën a jàpp ñu liggéey nga jàpp si ku si mënul jàpp nga dem toogi sa ruxu neexaluñ ci kenn mais toog muy dox moo jeex nday Sénégal loolu booy boo nga def ko nday sa bopp yow Assane Gueye nga nday fay rek trop sa ñuulaay bu dër bi waaw jugal nday fii waaw nga dem seeti leneen. waa l'observateur ñoom dañoo war a dem tëdd nelaw ndax l'Obs moom bokk na ci bokk na ci journal bu gën a mën a wax lu dul dëgg l'Obs bu bindoon cent page xamal ne benn titre bi ci kaw moo ci moo ciy tane waxuma moo ciy dëgg de mooy tane ndax l'Obs dañoo rus a wax dëgg moo tax Sidaat yow li nga def nii te nga wax ko waxoo ko ci sa coobare bakkan de mais dangaa gis nen ne nen a ngi dëkk bi nag tey la neex moo tax lu waay neex def wala lu waaye neex wax mais yow Sidath li nga wax dëgg ju wér kéng la kenn mënu koo dindi alaaji asano waa l'observateur ñoom ñëpp a yem ay jikkoy kaca kaña lañu yor yéenewun kenn jàmm mais nag incha rab rabbi seen xol dina dagg ngeen ngeer te kenn du leen ko teg ndax fu mu ne nii Bassirou Diomaye day liggéey de mu neex leen day liggéey mu naqari leen day liggéey te soxlawul sax yéen ngeen koy bind ngeen bind ko duñ ko liir ngeen ñàkk ko bind duñ ko liir mais l'essentiel wax dëgg dafa baax ci gor ci doomu aadama ndax ku bañ ñu yàq sa der waroo yàq deru jàmbur ku bañ ñu bindal la lu dul dëgg waroo bind lu dul dëgg ku bañ ñu wax la lu la naqari waroo wax nit ki lu ko naqari loolu mooy dëgg bi mu amee si temps wu Macky Sall da taxaw ne Macky Sall la. kon su amee si temps wu Sonko il faut que Sénégalais yi dëggu à ce point taxaw ne Diomaye la. ki ne tubaab bi wax da koy déggee pire soxlawu ko. parce que ñun tooguñu ci kaw territoire bi. président maye ko day wu ko dara. ndax dañ ne 3 mètres après tali te ñun amuñu ab 3 mètres 4 mètres après tali fii ñu ngi fi vingt di liggéey sunu njaboot lañ fi yor. donc mënoo ñëw jël place yi sànni si gatu xaj jox leen kayit boo xam ne 48 heures nga am. si ñoo xam ne ñu ngi fay place ñu ngi fay impôt ñu ngi génnee cash ñu ngi fay ba fay ay tableau naan non est-ce que c'est pas est-ce que. kon nañu may jàmm ñu liggéey débordé wuñ dara a ñu wuy ko Salam alaikum gay salam alaikum gay rupture bi commencé na waaw c'est ça la rupture waaw wa Golf Sud muñ len rek waaw muñ len yena a won rupture waaw foog rupture am rupture du neex nak buñ ñu deug rupture mom, du massa neex parce que dang fay jëlé la fa nekkoon dang ko fay jëlé pour indi fa lenen kon wax deug yalla buñ len bayé ci li ngeen nekk waaye nekkatu rupture te rupture nag dafa war a daj waaw c'est normal assumer leen rek ma ne ko assumer leen rek yàlla baax na euh, li ma ci xaw naqari kay mooy suma doomu ndey bi ma ci gis muy wax muy rifu onda maik waaw borom KL Siripenko Sayet suma xarit bi <clears throat> mais nag loolu mooy àdduna daal waaw rupture ngeen laaj rupture waaw foog rupture am foog ñu dëgër piir leen foog ñu toj seen cantine yi foog ñu wàccee leen territoire bi foog ñu toj seen boutique yi foog ñu rajaxe lépp maasale ko loolu mooy rupture voilà assumer leen yéen a ko bëgg waaw très bien ça euh, Khadija Mahécor yow moom yaa ngi ci voie de voie de rupture waaw yow moom na la Sonko ak Jomaay gën a fonk yaa ngi daxal seen liggéey jërëjëf ane je suis sidat laa la wax man sidat laa sidat, sidat Thioune sa vidéo bi nga def dëgg dong nga ci wax bien vrai que mooy sa directeur mais nekk directeur du tax tey instant mais wax sa xalaat nga wax nga toog wax sa xalaat wax lu la neex moom tamit mu génn tamit def vidéo wax xalaatam te xalaatam bi mu wax nii ba ngeen mise à pied ko tegu leen ko fenn sénégal nag nii la ah. magum day taxaw wax lu ko neex xale ñëw ne ko carrément li nga def du noonu ñu ne noonoo waroo ko wax da ngaa war a noppi mag daal day toog ci kaw di gis lépp day toog ci suuf di gis lépp xale toog ci kaw du gis dara ay waxi neen nga ne seen caaxaan yi ngeen nekkee El Hadj Assane Gueye xaw ma ci li nga nekkee nit ñi yàgg nañ la ko wax gouvernement Macky Sall li fi xew nii moom moo ko def son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye laalagul dara loolu la la Sidaat wax kon radicalisme yi ni nga radicale nii ci gouvernement bu bees bi nga xam deux mois lañ ci def lañ fi def boo ko radicaloon ci gouvernement Macky bi konoon instant bi ñu toll nii kon tey am sax fitu ñëw di la wax lii parce que dañuy xam ne xa kaama ni nga taxawee woon démb nga taxawee tey bàyyi leen seen jëfun naa fekk ngeen nekkee si daal ci dëgg la nekk li ma la wax mooy dëgg dund gu seer gi ah yaa ngi koy doog a yëg mais temps Macky Sall yëgoo ko woon parce que temps boobu noonu gars yi dañ la doon compal ngay téye di am dara ñun li nga xam nag ay baadool la ñun mosuñoo am dara ñun dañ ko doon jooy boobu ba tey te tey sax xamul tax mu neex ci ñun parce que suñ xol moo ko d'accord te dañoo bëgg changement. te pare nañ instant bu fekkee son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye day gën a yokk dund bi pour Sénégal mën a aller de l'avant pour d'ici deux ans Sénégal neex noo ko yokk yéen du ngeen dara barki alxuraanu karim ay mag yoo xam ne rek gars yi xoolal depuis 1960 ba tey ñu ngi toog di cëru xale yi war a cëru ne dañuy cëru nga ne leen noonu du ci dal ci daan waxu la dara lu am lu lu lu métti ay waxu ci kaw la boo ko waxee ci kaw ñu tontoo la ci kaw. Macky Sall yàq dëkk bi yow ci ñu yàq dëkk bi ci nga bokk parce que yaa nga fay jox ay fausse information jàpp jeunesse bi dina xas di leen saaga te jeunesse bi seen bopp lañ fi teewaloon pour xool naka la ñuy def ba ba ba dund gi ñoŋ pour naka la ñuy def ba ñaaw teew yi fii am li foncier dañ laa mës dégg nga wax ci li foncier yi mosu ñoo dégg nga wax ci te say nit yoo xam ne yaa ñu ngi la doon woo en direct nga leen di invité ay ay ay ay sax ay ay émission ñoom ñoo fi nekkoon di sàcc ci suuf euh, alalu askan wi di ko séddoo di ko pàccoo leen neexee information yooyu mosu leen ko joxee ngeen toog ba tey ngeen bëgg Bassirou Diomaye Diakhar Faye toog fi deux mois ngeen bëgg mu lépp normal bu la ñu fontoo Sidaat merci beaucoup gis nga booy ñàkk sa liggéey ci dëgg ñàkk ko ci dëgg mais bu nangoo téye sa liggéey ci ay fenn merci beaucoup Sidaat on est tous derrière toi waaw yow ngeen bëgg lu yomb torop ay pas yoo xam ne toog di wax lu leen neex ne kenn du leen weddi tegu leen ko fenn. ayca ba tey ndaw kunda bi la doomu Naby Vision. l'enfant terrible de Ndiaye Kounda l'ambassadeur de Saloum sama kàddu gi nag day jëm ci Assane Gueye bu TFM di jaajëfal Sidaat bu baax ginnaaw bu ma yëkkati ay kàddu demale ko ci Assane Gueye son directeur de programme ou son directeur de télé pour recadrer ko xamal ko ne li nga kaas tey jii wala li nga nekk di pronostic tey jii boo ko waxoon ci nguuru Macky Sall te gisoon nga ko mais danga noonu miit téye sa téye sa bopp ba pare xamal ko ne ko gouvernement mois. kon mënuñu régler toutes les problèmes de ce pays Assane Gueye ci ay tappale la nekk Assane Gueye moo nekk journaliste boo xam ku dàqa manipuler les sénégalais ci moom moo ci toog parce que en Covid ci Covid 19 bi moom moo ñu gënoon a manipuler ndax lépp moom moo ko vision Covid 19 bi Assane Gueye amul lu mu ci waxul te dara du ci dëgg Assane Gueye na ma bàll mais mag mu. mag moo xamante nii la daanaka mën nañ koo recadrer mag moo xam ne manipulateur la jaxase rek te la mu doon lañ doon am ca nguur moom la ñu mën am ci nguur gi moo tax tey lu na ñu koy waxee tey Assane Gueye bu taxawee ne day def ay jàngat day jël day day day day dal ci kaw nguur gi di wax dëgg di jéem a xamal nguur gi ne leen nañ comprendre sénégalais yi nañ nangama nangama nangam loolu ay tappale la li muy wax gëmul ci dara maam ñoom lu ñu mën a accepté ba tey mooy Diomaye ak président de la ak Diomaye ak euh, le président Diomaye fay ak le premier ministre Ousmane Sonko ñoom la ñu mën a ac la ñu mënta accepté ñoom ba tey gëmuñ ne ne sax ñoom gagné nañu ñu ngi pale seen manipulation yi liy nekk mënta jàll Assane Gueye wax sa xalaatam boo leen ko dégloo ngeen xam ne kii waxu naa fekk dëgg lay wax waxu naa fekk dëgg lay wax ndax gisoon na lu mu waroon a kaas si nguuru Macky Sall te mosul li ni digg mu kaas bi Macky Sall di dalal ay sàcc biir palais de la république est-ce que Assane Gueye kaasoon na loolu bi ñuy rey ay doomu sénégalais fii ci réew mi est-ce que Assane Gueye kaasoon di jaay doole di toxal ay élection di def lu ko neex ci réew mi est-ce que Assane Gueye kaasoon na loolu Macky nekkee fi lu ko neex di def lu ko neex est-ce que Assane taxaw di wax Macky Sall li nga nekkee du dëgg. tey mu taxaw ne day wax dëgg day kaas day yedd eh, gouvernement bi dégluwuñu la sax parce que nekkoo ci dara ci ay tappale ak manipulation ci nga nekk Assane Gueye mag mu mën a manipuler nga balaa ñuy wax ñuy jaay rëy làmmañ naan dañuy am xam-xam dañuy wax ne ñi seytaane naan ko yow moom ku baax nga ci réew mi yow moom da ngay jubbanti lépp ay tappale la Assane Gueye nekku ci lenn ci tappale la nekk seen télé boobu ak l'observateur tàppale yu mag ci lay nekk l'observateur nan la mën a xëyee bind ne Ousmane Sonko lu mu digoon baykat yi deful si dara ndax dañoo waxoon na dañu fay ay bor te fayuñu ay bor loolu du tappale moo tax gàcce nga la à ministère de l'agriculture sur sur le sang la woote biir TFM démentir la nga xam ne moom la euh, euh, l'observateur bind maanaam li xeetu GFM TFM am fa nekk ñuy wax dëgg mais du ñëpp lu ay lañu lañ l'observateur depuis 2014 du wax ci du wax Ousmane Sonko depuis 2004 depuis l'apparition de Ousmane Sonko sur la scène politique l'observateur mosul bind ci Ousmane Sonko lu Ousmane Sonko da koy chargé Ousmane Sonko c'est des manipulations ci Ousmane Sonko ci la nekk guddi ak bëccëg kon Assane Gueye man ta bëgg Ousmane Sonko man ta bëgg Jomaay dañ koy bëgg bëgglu te lépp lu ñuy wax suba ba jant soo gëmuñu ko nekkul ci ñoom du dëgg ci ñoom ci manipulation la nekk askanu Sénégal mais loolu du jàll ñun ak ñoom la ñun danoo votel projet bi ba pare di ko protéger ñun yàkkamtewuñu te Ousmane Sonko am nañu lu ñu waxoon. bu ñu ñëwee ci gouvernement bi six mois et nangam mën nga nekk di def ay réformes nangam ak nangam ak nangam mais bu ñu demee pendant un mois un an et nangam ci la réew mi mën a tege ci yoonu siraatal mustaqiim te loolu Ousmane Sonko waxoon ñu ko du tey la ñu ko waxoon depuis deux mille vingt ba deux mille vingt et un ba deux mille dix neuf la ko waxoon kon ñëwul ba tey naan ñu may leen ñu temps déedéet. ñun xam nañ bu baax ci yenn difficulté la gouvernement bi jële go. Naby Vision ndax Macky Sall ci tappale yu mag la nekkoon ci caaxaan dong la nekkoon ci réew mi kon caaxaan yi fi Macky Sall nekkee dafa leer te Macky Sall kaa war a indi Macky Sall ku ñu war a déglu la Antoine Diome ku ñu war a déglu la parce que liñ fi dee yëpp ak terrorisme yu mu fi doon tuumaal yëpp war na mën a indi teg preuve gi ak bis bi ci yaraax war nañu mën a tegal preuve yi. ci tapale dong ci lañu nyunek, Assane gay nak mo leen jité woon di leen defal seeni publicité di leen annoncer bir kon ñom rek la mëna bahul, àndal baaxul manul manul leen dara jomay manul leen dara président Ousmane Sonko manul leen dara son la monsieur Bassirou jomay jaxar fay manul leen ko dara tar fatan ay ni manul leen ko loo leen mënu ci ci ñaar dërëm mënu leen ko ci Ousmane Sonko jomay jomay moy Ousmane Ousmane ay vous allez souffrir